DG Port fondation mayee na cinquante millions pupilles de la nation teg ko ci loxo Fatima Mbeng mhm. moom it jeune la boo xam ne premier emploi moo nekk noonu si clientèle politique donc ku mën a joxe cinquante millions yóbbu ko pupille de la nation balaa ngay dimbale da ngay fexe ba ñu ne ca poor ba ni poor bi di chuter nii mhm. bu am problème euh, conteneurs yi taxaw fa commerce direct ak indirect yëpp taxaw fa yow ngay politique ñii nag ay agent lañ ay employé lañu seen i prime waa port yi ñu ngi la koy wax parce que si lañu ñu yaakaar am ñu leen ci yaakaar te Sénégal fi gàmmu toll ci ñoom dafa foor donc yóbbante la boo xam ni fallait que ñu dugal ko beneen bi ñu ngi gis l'actuel le président de la République tey mu dem Medina Baye contexte gàmmu nag la ñu gis ndax ñàkk dem bërëb ba gàmmu romb moom day doy waar te ñun fii dañ fi doon taxaw di wax ku mu neex nga justifier ko nu mu la neexee. waaye li ñu doon wax mooy mm. dañu am tradition républicaine président bu ñu fi fal balaa ngay yëkkati signature da ngay wër ci kër xalif généraux yi parce que république bi ñaar ñii ñoo koy partagé pouvoir spirituel bi ak pouvoir temporel bi mais pouvoir spirituel muy daara ji muy diine ji muy xalif yi ñu ñoo téye république bi donc ku fi ñëw toog waroo toog sa sedd te waroo ñëpp même titre même égalité façon bi ñu ko defee seeni façon la mais bu Kaolack bi yàgg nañ ko taxaw du Cheikh Maye ñas moo tax ñuy wax parce que Cheikh Maye Niass ku baax la jéggal na ba jéggal ñu koy saaga. Mm. lu rafet rek la xam ma makaarimal xalaa lay dund waaye représentativité Kaolack ak dimension bi Kaolack am ci héritage bi mu am ci wàllu état ak gouvernement ak ak diplomatie ak li mu raccordé ci CEDEAO ak Union africaine moo taxoon ñu ne cëru Kaolack booy sos état boo yegsee da nga war a wax ak ñoom dem na nag ñu ngi koy jaajëfal. ca dem nga mu dem foofu. Mhm. beneen bi si topp ñu ngi jaajëfal Cheikh Maye Niass ca teeru ban ko teeru teeru ko ni nu teeroo buur parce que Kaolack seena Cheikh al Islam loolu la wax Kaolack du contre nguur loolu Baye Niass a ko fa bàyyi ak sëñ Cheikh Abdoulaye Niass waajuram Kaolack ñoom amuñu nguur république la ñuy soutenir. ku jàppee woon ne ànduñoo ak yow yaa ngi nax sa bopp tey les mêmes traitements de faveur la defal bi ñu defaloon Abdou Diouf bi ñu defaloon Ablaye Wade bi ñu defaloon euh, tey euh, Macky tey yegg si na fa ñu ngi leen di jaajëfal parce que fii lañ doon taxaw di ko wax. Mm-hmm. bu ñu yeggee nee nañu fëgg nañu dañoo voyagé woon mais mm-hmm. barki démb dañu gis Cheikh Maye Niass toog ak Soxna Aïda Mbodj di ko fàttali sama xarit yi di gisagu gisatuma leen. donc ci diggante bi nag bu ñu ci demee jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal li xew Kaolack li xew Mbour dafa am ñu fi toogoon doon tudd ay influenceurs am ñu fi amoon ay site d'information am ñu fi ñoo xam ne bitim réew la ñu nekkoon porter benn combat ci deuil national critiquer l'ancien président de la république bi mu defee tuit ci Rihan xaw ma xale ba gaañu woon Maroc ca teen ba mm-hmm. sénégalais yëpp jóg ne le président de la république day am cinq morts six sept te du wax te du taxaw te du def déclaration mais lii xew ci affaire mbuur bi ak li xew ci affaire bus bi nga xam ne dafa daanu seize morts waxuma sax benn ministre mais état bi ak le président de la république ñoo xam ne dañ leen enterré ci fosse commune ñoo xam ne ni ni ñu leen seen identifier coor yi sax c'est tout un problème dama wax ni république bu benn nit génnee àdduna le président de la république ca saas war na taxaw waaye waxuma la ñaata nit ak ci contexte bi ñu génnee àdduna mm. le président de la république loolu moo doon farata ñun xalif généraux yépp démb ci seen burdu yi ñëpp tey dañu changé seen thème dugal ci thématique boobu. Mhm. parce que bakken dafa fort. Mhm. surtout anam bi ñu demee. Mhm. waaye nag li xewoon hypocrisie bi amoon. mooy deuil national bi ñu jëloon campagne ko attaqué ci ay nit mais lii ëpp na deuil national. lii saxu yemul ci deuil national mais parce que toutes les famille sont touchées. parce que ni ñu demee. ak ñi dem ci accident bi zone yëpp lañ jóge ak région yëpp lañu jóge donc pour man ña doon wax deuil national démb. ak ña doon kaas yi ne ci réseau bi. ndax dañoo tukki wala dañoo tuxu wala boobu seen xol bi dafa amoon leneen lu fa nekkoon ak lu bokkul ak dañu changé ci diggante bi seen xol yi def ci plastique. ñooñu laay posé question ci ñi ñu réclamé woon deuil national boobu fan la ñu nekkaat parce que ñii il mérite plus qu'un deuil national il mérite plus même des réflexions li am nag les leaders politiques ni buggaan demee déplacé wu dem taxaw ci Almeria fekk leen fa ñu ngi ciy woo aussi les autres. Mm-hmm. parce que on ne peut pas politique politique chaque jour ñuy politiquer immigration bi. mort des des personnes les familles yow leader bi doo bouger fi nga toog. Facebook nga koy yemale Twitter nga koy yemale mais boo dul dox dem dugg ci biir kër famille xool li leen dal ñëw taxaw ci sa jëm waruloo di porte seen voix di ko def ay plaidoyer di ko def thème de campagne. kon donc yii xew bu amee muy crime ca koñ ba muy agression wala muy oto bu këpp le leaders noonu la ñu war a solee seen i sol seen jean déplacé wu dem foofu. on a annoncé bi ñu dénk wàllu pêche mais malheureusement demul woon ci zone boobu. noo xam nga dégg na mais dama wax ne la lii am démb président de la république waroon na sax mu nekk voyage mu écouté ko. écouté ko. parce que dafay am xew-xew yu am bitim réew. ñu ne président boobu lii moo am ci dëkku sànga mu arrêté sommet wala mu arrêté leneen. parce que lii xew tey ay nit la yoo xam ne dañu doon dem di uti ji ñi jël horaire bi di dem ay horaire bi ku ko jël rek xamal ne ni luuma nga jëm wala déposé marchandise wala leneen ak leneen ñi nga xam ne ni aussi tamit ci gaal gi lañ jëm te mbuur googu tey état bu bees bii hmm. lu laal mbuur waroon nañoo jóg parce que seen lépp mbuur lañ ko basé woon seen dernière meeting sax fa lañ ko defee yaakaar lu mbuur xale yu mbuur amul manifestation yi lu ñu cotisé wul ci manifestation bi ak seen ak façon mm. lakk nañ fay KFC bloqué fa ay nit bloqué fa leen te xale yi ñoo porté woon seen combat boobu donc bu dara xewee ba ngay campagne daan fa ñëw mais gis nañ premier ministre l'ancien l'actuel premier ministre ci gaal la defee woon communication mm-hmm. dafa watatu dugg ba ci biir gaal mu toog ànd ak pêcheurs yi période bi may ut ne leen lii responsabilité bi état Macky Sall la. Mm. kon aujourd'hui la responsabilité état Ousmane Sonko la ak kiiwam donc ni mu defee woon gaal toog wax ak ñiy napp lan moo tax tey deful noonu gaal toog ci biir géej gi waxaat ak ñoom donc c'est au Sénégalais de voir bu ñuy ut nan la ñuy comporté woo ak bu ñuy def communication parce que même actuel premier moo fa toog ne BNDE DER yépp c'est des outils yu amul njëriñ. Mm. bu ñu yegsee dinañ ko boole ut solution bi état bu tële moo tax xale yi dem ne leen toog leen ñun bu ñu yegsee dinañ régler problème bi. Mm-hmm. mais ñoom bi ñu toogee si la mbir mi wulee ñaay qu'est-ce qui s'est passé jeunesse bi am nañu am nañu dégg-dégg am nañ gis-gis parce que ñoom bi ñu ñëwee ci politique quand même de débat politique changé na jeunes yi ñu commencé di xalaat mais bu ñu yegsee appel candidature bu amoon lii dina wàññeeku. bien sûr parce que xale boo gis ndijaayam mu ngi gàddu ay diplôme ci këram. mais bu ñu yeewoon xale jóge ci biir kër yeewu gis ndijaayam déposé ñu woo ko nommé ko directeur mu gis ndijaayam politiqueul da doon jàngi rek di ñëw mais xale boobu da naan même man su ma nekkee ci napp gi sax sama doom yi dinaa leen yóbbu école ñu jàngi parce que sama ndijaay bii daa yeewu mais jeunesse bi ñu nommé ñoom ñëpp ñu ko doon tàcc ba ci ki def toj toj bi azer ñu toog di ko seetaan di ko nëpp nëppal Euh, le jeune seen la bi ñu doon nappee xale le plus jeune DG mu ñëw toroxal entreprise nationale au profit des entreprises étrangères dañu doon ndamoo ni ndaw ñi la ñu fal mhm. mais ndaw ñoo ñu ñu fal tey lan lañ doon liggéey démb politique moo leen may li ñu am mais ndaw yi tamit dañuy seetaan bu ñu yeewoo gis nga ñëw yegg si appel candidature DG ñaata DG bu ñu jëloon DG yëpp ci appel candidature kër gu ne di nga ko laal koñ bu ne di ko laal secteur bu ne di nga ko laal ki toog foofu day am espoir ni léegi jàng njëriñ la rupture baa ngi nii. Eh beneen bi mooy audit fonction publique bi bu dee ni da ngaa ñëw nga jël Toussaint Manga mu dem LONASE musul liggéey de sa ay fonction politique ñëw dindi 500 emplois ñu gis DG Port lan la yoroon sécurité ci parti bi gëj na impôt. kenn déggatu leen woon fenn mu yeewu ñëw génnee sept cent personnes nga yeewu gis DG yi amul kenn koo xam ne ni prime lan lañ la falee lu dul politique lu dul da ngaa àndoon ak Pastef ba ci feera bi ñu ki ko jox ñoo defoon mafia kaj kaj nekkoon fi ña dawoon stagiaires yi génnoon réew mi ñu jël leen jox leen ay direction wala léegi xale yi ñu bokkal koñ xale yi dëkk Grand Yoff yeewu gis kii kat daa dawoon jël gaal yeewu ñëw ñu def ko directeur mu wàcce 4-4 bu mag ñu gis dàmboo ji def délégation di dugg Touba di dugg Tivaouane di dem ci màggal yeeg gàmmu yi te ci télé yi rek la doon wër ab ci télé yi moo doon usine am ak société waaw mais xale yi dañuy seetaan dañuy gis appel candidature ak clientélisme à outrance bi ñu nekkee di nommé moo indi lii parce que xale yi dañuy seetaan